balaa may wax ci amélioration yi damay fàttali tuuti cinq points yi nga xam ne ci la ñu nekk di di laaj saafara. ñu ko mënee hmm. wolofal noonu. donc bu njëkk bi moom mooy ñu defal ñu li nga xam ne moom mooy musée musée mémorial. donc pour boobu am na bi nga xam ne ñu ngi koy tabax Ziguinchor. mais ñu nañ laaj dafa sax moom mooy lu ñu def Ziguinchor nañ ko def dakaar parce que bu ñu fàtte ne que bato bi. da doon jóge Ziguinchor ñëw dakaar da doon jóge dakaar dem Ziguinchor maanaam ñun ak Ziguinchor amul gënale kontaan nañ ci luñ ko defee Ziguinchor mhm. mais ñu ngi laaj ñu dupliquer même mémorial musée euh, biir dakaar tamit beneen poñ bi mën naa wax moom la ñuy woowee euh, justice mhm. ba tey justice bi avancé wul donc ci dernier procès yi ñu mujjoon am France la woon su ma juumul su fekkee wax naa li nga xam ne peut-être leerul Chamsidine dina ci gën a yokk mais olofal bi xaw a métti ci man mais euh, côté justice bi amuñu ba tey saafara dañ dañoo wax non-lieu responsabilité bi dañ ko teg ci kaw capitaine bi nga xam ne moo nekkoon capitaine bateau bi te comme que moom tamit dafa làkku ci bateau bi ñu jàpp ne que moom mooy sa responsable bi donc dañ jàpp non-lieu moo am ñetteel mhm. point bi mhm. moom mooy prise en charge totale des orphelins du Joola donc pour fàttali président bi fi nekkoon euh, période naufrage bato bi moom mooy maître Ablaye Wade dafa waxoon bato bu mu këppoo dafa ne état bi dina jël en charge tous les orphelins du Joola te bu ñu paree ci naufrage bi ñu ngi jotoon a xayma lu mel ni mille neuf cent et quelques orphelins ñoom ñëpp ñu waroon nañ leen jël en charge donc ci 2012 ñu créé lu ñu woowee office national des pupilles de la nation. ci diggante bi ñetti décret ñoo génn. su ñu waree xayma ci ñetti décret yooyu nombre orphelins yi ñu jël en charge c' était aux de 700 et quelques yeegul 800 cent est pour ne pas ma juum loolu mooy wax moo tax may wax et quelques mais yeegul 800. ba tey ñu ne pipi mineur boo déggee ñu ne pipi mooy ñi nga xam ne amaguñu fukki at ak juróom-ñett maanaam 18 ans. ñoom la ñu jël ñu ne dañ leen jël en charge ci ñooñu ñu def ci décret yi am na ñi nga xam ne benn weer lañ leen indemniser ñeneen ñaar. depuis depuis am na ñi nga xam ne. benn weer lañ la indemniser mooy ci janvier février boobu keneen ñu jox la deux deux mois c'est fini am nga 18 ans nga génn ju moment où am nga 18 ans dañ la génne ci décret bi ma jox leen exemple bi nga xam ne peut-être man maa ko dund. maanaam 18 ans boo ko amee bokkatoo. bokkatoo mais ba ñu waxee dañ leen di indemniser. Mhm. boobu fekk na am na ñenn ñi jege woon nañ 18 ans. su ma ko jëlee exemple ci ki topp ci man. naufrage bi mu amee ak indemnisation bi. def na 10 ans. ok déjà. pour pupille pour prise en charge parce que nous nous on est on est le terme pipi maanaam ñun bëgguñu ñuy wax njëriñ yu ndaw ñi dañu bëgg ne njëriñ ñëpp. parce que ñun ñëpp a bokk ñàkk. boo ñëwee di ñi nga xam ne amaguñu fukki at ak juróom-ñett ak ñu ko ëpp day indi xaaj loo parce que da dugg ci kër nga jël bu ku gën a ndaw ki bàyyi ku mag ki alors que peut-être ku mag ki mënoon nga kaa gunge moom mu xaw a am tuuti jàppale ku ndaw ki ñoom xaajloo boobu ñu indi ci diggante ci kër gi sax dafa metti pour ma jox la exemple bu gën a simple office ñu ngi ko taxawal ci 2012 man sama rakk bi topp ci man. de de décembre 2011 la am 18 ans décembre 2011 la am 18 ans. ok janvier 2012 nekkuloon ci décret yi. ñi nga xam ne di sont nés genre vers janvier peut-être janvier. Uh-huh, uh-huh. dinañ la dugal dinañ la fay février am nga 18 ans génnee nañ la. donc c'est juste un exemple. donc quoi. ça veut dire que romb yëpp yow moom. man man moom <laughs> garaaw waxaale wuñ ko. non en fait pas yow mais. at yi romb mais su ma waxee ak ñi nga xam ne peut-être am na ñi nga xam ne sax matalee guñu woon fukki at ak juróom ñett mais nekkuñu ci woon. d'accord te su may wax su may jël exemple dama koy jël ci ñi nga xam ne xam naa leen te dund nañ ko damay jël sama rakk tamit bu góor moom man xeex naa topp naa dossier yi ba 2015 mu amoon troisième décret bu naroon génn décret bi ma topp ko. sama rakk avril la am 18 ans bi génn juin ñu génne ko boo xas jàppal ni que décret bi bu génnagul sax boo xasee ba am fukki at ak juróom-ñett doo ko dootoo ci bokkati pour mu leer. d'accord léegi ñu continuer parce que combat bi yamul ñun ñu ngi continuer xeexuñu pour ñun dañuy xeex pour ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy foog tur bi ñuy wax njëriñ. Mhm. parce que kenn bu ñu sañoon duñ ko nekk. bu ñu sañoon suñu waajur duñ ci des parce que ñoom ñu yor leen suñu wet ñoo ñu gënal hmm. dañ koy wax parce que bu ñu sañoon wax dëgg yàlla duñ ci bokk hmm. mais li nga xam ne état bi nga xam ne moo nekkoon le seul assureur du bateau hmm. nangu ni mooy le seul assureur ba indemniser njaboot yi parce que boo demee ba indemniser parce que tu te sens responsable di nga indemniser donc booy def lu baax danga koy def mu mat ci sama xalaat parce que njëriñ mi bëri woon nañ booy jën bul jën ñi bàyyi ñii donc bu ñu continuer di di def suñu plaidoyer en 2021 ñu génnee benn liste 371 orphelins majeurs ñu ne comme que dañu amoon ñi nga xam ne dañ leen a fàtte woon a fay wala boo ko ñu ci décret yi ñii su ma ko mënee tuddee ndàmpaay bon xaw ma ndàmpaay exactement vrai sens am ci olof ñii dañ leen di jox ndàmpaay ci encore ci ndàmpaay boobu bu ñu joxe am na ñi nga xam ne encore waat nañ leen am na ñi nga xam ne kenn dugalu leen ci liste yooyu parce que jël nañ à partir de 1985 ñu juddu cinq ba 2003 ñi nga xam ne fàtte woon nañ ñëpp jël nañ leen ba pare lu ñu jot a jot nuñ ko xaajalooyee ñun comprendre ñu ah. parce que ñun dañu jàppoon ne que booy indemniser c'est à partir de nofrage bi année bu mu am ba nit ki nu mu amee 18 ans. Ah. man noonu laa ko comprendre woon mais d'après lu ñu expliqué. ndàmpaay buñ koy joxee parce que par exemple dinañ jël ku juddu 86 ñu jox ko benn montant ci juddu 89 même montant lañ koy jox 91 même montant. 85 même montant ainsi de suite. Hmm. peut-être ñu mujj yi ay 96 ak yooyu peut-être am plus 96 95 jëmee ko 2003 ñooy am plus. mais xamoo ba ñun ba tey xamuñu sur quel barème man personnellement je sais pas sur quel barème. Hmm. la ñu sukkandiku pour def ko ba tey may fàttali ñu ngi leen di jaajëfal ci effort yu ñuy def waaye teewul duñu bàyyi suñu komba lu ñuy ñaan mooy bu ñu xaajale nañu boole nañu gën a gunge jirim yi parce que ñu bëri ñu ngi ci lekkool yi ñu bëri ñu ngi ut seen bopp mm. parce que c'est bien nga jàppale xale ba mu am 18 Afrique lañ ne Sénégal lañu neen nekkul ñu bitum réew. xale bi bu demee université lay gën a soxla ku ko gungee 18 ans moom du dara vraiment. ci heure boobu sax ngay gën a soxla ku la gunge. bien sûr gisoo waajur bu ko war a def état bu porté wu volontaire bu ko defee dañ leen di féliciter mais nañ gën a yokk lu ñuy def bu ñu xaajale xale yi nañu def yëpp ñu xool fu nga xam ne am nañ ci jumte ñu jéem ko defaraat ba mu baax gën a. jàppale xale yi dem ci kanam ñi nga xam ne fàtte woon nañ leen nañ jé nañ nañ jéem a recenser dugal leen ci liste yi vraiment ñu gunge xale yi donc ma ñëwaat ci euh, quatrième point bi nga xam ne moom mooy faire du journée de vingt du vingt six une journée de mémoire ou de prière maanaam laajte wuñ leen ñu jël le vingt six ñu defal ñu ko journée fériée déedéet le 26 dafa war a doon journée fàttaliku ma ñëwaat ci imaam lu mu wax nangu nañu ndogalu yàlla mais dañ ci war a jàngat. Mhm. le 26 lu ci am dañ ci war a jàngat parce que chaque jour ci yoon bi ñu ngi gis ay vingt 26 ci oto yi ci tali yi il y a eu énormément d'accidents il y tout le temps énormément d'accidents mhm. d'où le thème de notre année maanaam ci at bii dañu ne. sauver des vies en tirant des leçons du Joola maanaam nañu du ma ne aar <laughs> olof bee gis maanaam nañu sàmm ay dund suñu xëj suñu jàngatee ci Joola luñ bëgg a wax ci loolu mooy joolaa jàngal nañu lu bëri waaye ñun ñoo bëggut a jàng dañu bëgg a wax ni que lu ñu gis li nga xam ne moo doxuloon ci joolaa ya ba indi la Joola nañ ko jël comme leçon di ko doxee bu ko bu ci ëllëgee du ñu mën a amaat ay accident yu mel noonu su ma mënee lim mën naa wax surcharge bi mën naa wax euh, vitesse yi exemple pour jël ci tali mën naa wax ni que ñu def visite technique auto yi hmm. parce que ñun dañoo laxiste hmm. moteur bi day paan ñuy sooxal frein bi paan ñuy sooxal ñaata camion la frein yi paan ñu continuer ba far yàlla ñu sàkk doomu ñu fat gaagal doomu jàmbur yi hmm. wala ñoom ñu sàkk seen àdduna benn yoon. d'accord donc dañu bëgg a 26 bu jotee comme doyen nu mu ko waxee état bi présent parce que doyen nee na on voit l'absence de l'état l'état est absent nous on aimerait que l'état du Sénégal ñu tire leçon ci waa États-Unis le 11 septembre mosuñu ko fàtte. fàtte bi du jooy bi ak plaindre mais ñu toog ñaanal parce que ñu des ci bato bi ay nit lañ ay nit lañ comme ñun. mënoon na nekku ñun mënoon na nekk keneen waaye ñoom la ñu toog ñaanal leen parce que nit bu wàññeeku dañ ko war a ñaanal fàttale ko ñaanal ko loolu la ñuy woowee journée souvenir observer minute de silence en leur mémoire parce que ay nit lañ am na lu ñu xam ne waroon nañ ko mën a représenté ci dëkk bi am na lu ñu représenté woon ci biir dëkk bi donc euh, <laughs> de euh, justice bi j'en ai parlé. waaw ouais, justice bi nga njëkkee. j'ai parlé de journée de souvenir. Mm-hmm. mémorial bi. j'ai parlé du mémorial musée. Mm-hmm. et j'ai parlé des orphelins. voilà dernier point bi. ngeen jéggal ma nga booy. expliqué non non non da ngay yow koy jëlee sa temps de parole rek après ñu libéré la. <laughs> donc dernier point bi. Mm-hmm. moom mooy renflouement bateau. maanaam génne bateau bi génne bateau bi damay fàttali. ay jullit lañ man par le jullit. jullit mooy ku mooy croyant waaw mooy man par le terme jullit je la je je je comprends croyant maanaam nit ku gëm yàlla waaw ñun Sénégal Afrique dañuy suul suñuy moor mhm. dañu jàpp ni que bato bi du suñu si du cimetière mhm. ku nekk ñaan nga foo suulee sa waajur wala sa mag wala sa rak wala sa am di jaam boo fa mënee dem ziyaar nga ñaanal ko nga def ko géej du armeer renfoulement bi ci temps wu je rappelle encore balaa peut-être question yenn question di ñëw ci prix wu renflouement bi et tout je rappelle un peu ci temps wu président Wade volonté ba tey manque de volonté la laa ko jàppee parce que quand les familles on demandé ñu génnee bateau bi am nañ ay partenaires wala ay pays yu taxawoon pour fay njëg bi ko nar a génnee prendre en charge lépp li nga xam ne moo ci dem mais volonté bi moo fi nekkul autorisation bi ñuy wax on vous autorise bato bi ñu renfouler ko moo amoon renfoulement bi ça permet aux famille de fair la deuil. d'accord parce que majorité bi amuñu fu ñu suul seeni waajur yi wala seeni mbokk yi tax dëgg yàlla nous tous nous sommes des croyants yàlla la gëm te on aimerait vraiment ñu suul suñu parents yi. da jàpp ni bato bi am na ñu fa ay. Euh, am na lu fa des li fa des maanaam mu ngi exister ba léegi. jàppuñu ko waaye dañ koo xam damay jël exemple ci l'année dernière juste euh, après anniversaire bateau même le même jour j'ai reçu benn lien bu la montre Shams moom ma ko yónni mhm. dafa amoon benn plongeur bu dugg bu plongé am yu mu fa jot a jël mhm. am na lu mu fa jot a jël gis naa fa ay osman ak yenn ni mu yëkkati ko après mu ñëw def interview ci interview am li ma ko mën a tënk rek dafa ne ni que ce serait bien yenn objet yi nekk ci biir bateau bi ñu jël ko exposé ko ci musée bi c'est sa proposition d'accord te hier une information sûre que Elisu bateau bi mu ngi ci musée Ziguinchor bi. génne nañ ko. génnee nañ ko. une information buñ ma wax ne que Elis bi dañ ko génne mu ngi ci musée bi. ki ma ko wax sa laaj naa ko yow dem nga ci musée bi gis nga ko mu ne ma déedéet dew ma fa mais ministre bi moo fa demoon mais nee nañu élise bi te kooku rescapé la nee nañ ma élise bi mu ngi ci musée bi. donc jàpp nañ mu ngi fa donc je sais pas ndax jéem naa tënk li nga li nga ma laaj. Hmm. pour indil la tontu yoo gën a leer avancé yi ñu am rek ci ñaar ci gàttan ci ñaari pong la moom mooy prise en charge orphelin yi ak construction wu musée mémorial lu ci des yëpp fu ñu nekkoon ca ci 2007 ba tey moom nañu nekk nii merci déedéet yow kay da ngay tàggoo parce que ñëpp ñun ñëpp yow lañu doon déglu <laughs> Martine def nga sa plaidoyer def nga sa émission léegi kay tàggool rek donc euh, maa ñu bàyyi delluwaat sa liggéey. d'accord donc euh, maa ngi d'abord damay ñaax. Mhm. damay ñaax ma fàttali que affaire Joola du affaire famille affaire Sénégal la ku nekk xam na kenn ku xam keneen ku ko mhm. ku fa am kenn ku mu fa ñàkk. Mhm. donc dañ leen di ñaan yéen sénégalais yépp gën soutenir ñu parce que suñu combat ñun bëggatuñu lu mel ni am. Mm. c'est pas parce que suñu waajur moo ci des mais bu nekkoon waajur keneen sax moo ci des man du ma neex. Mm. donc j'appelle au changement de comportement des sénégalais ci lépp lu ñuy def nañ ko moytu ci lépp lu ñuy def nañ sóoraale ëllëg. Mm. parce que ci lu ñuy def su fekkee sax gaañu ñu mën na gaañ keneen. donc lépp lu ñu ko def nañuy def dañ ci war a xalaat saytu ko bu baax balaa ñu koy def. ba pare di souhaiter bon gàmmu ñi nga xam ne ñoo nekk di dem ci gàmmu bi aussi di lañ ñaan. ñu prudent. c'est important chauffeurs yi ak hmm. passagers yi ñëpp nañu prudent. d'accord donc euh, di remercier Birima mi ma invité. Birama Birama merci <laughs> Birama d'accord euh, donc di ko invité bu baax di <laughs> ko jaajëfal di jëfal ñëpp ñu nekk ci plateau bi vraiment merci beaucoup. est que